ومن تبع هداه إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد التياني وعن سائر مقدميه وخلفائه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko ñu mu wuutuñu jullin ñu ci yante yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ngërëm suñu wasiila ci yàlla cheikh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 yàlla yàlla fayal ñu sëriñ bi euh, ñu ngi nekkoon tabaarakallahu ci chartu tariqa bi nga xam sëriñ bi yaatal na ko lool waaye di ko jeexal nag tey ci dars bi fa tabaarakallahu ñu dem ci mu mujje wax quatorzième charte bi ne mooy nga xormaal sa mbokk taalibe yi bëgg leen ndax képp ku yàlla nattoo di woyofal say mbokku taalibe loolu à long terme moom la nattoo ngay dem bay woyafal kilifa tariqa bi dema dema dem ba à long terme woyofal xaqu yàlla ndax yàlla dafa am ay jaamam ci biir mbindeef yi ci xamar na ci yàlla ñu ko fayal alxaamisu achar tahaawu adamu tahaawuni bil wirdi ka taxirihi an waqtihi min gayri usrin wa naxwi qaala radiyallahu anhu wa man axadahu wa tarakahu tarkan kulliyan aw tahawana bihi xallat bihi alcuquba wa yaatihi alhilaak wa haada bi ixbaarin minhu sallallahu alayhi wa sallam li cheikhina tey nag fukkeelu charte bi ak juróom mooy nga bañ a doyadal werd bi nag gannaaw bi nga ko jëlee maanaam yow tijaan bi boo xasee jël werd amoo droit doyadal ko ñu laaj Cheikh Omar lan mooy doyadal werd bi mu ne que te xiirihi comme yéexe ko an waxtu yi ci waxtoom min gayri uzrin ci ludul ngant da ngay dégg ku naan waxtu bi ñaar la darura la ak muxtaar mais darura li muy firi mooy lor maanaam ñu ngi ko fi tegal pour ku am ngant léegi nag yow mi nga xam ne nii yaa ngi dëkkee werd ci darura bi te amoo ngant loolu xeet la ci tàmbalik doyadal mais doyadal dëgg-dëgg nag mooy nit ni nit ñiy def léeg-léeg i eh, man di man war naa xoolaat sama bopp ñetti fan a ngi ni werdu ma waay man di ñeenti fan a ni werdu ay waay man di bërki démb ba tey werdu ma euh, loolu xam nga nit ki waxul ne bërki démb ba tey añu ma bërki démb ba tey reeru kon boo toogee naan ñenti fan a ngi ni werdu ma juróomi fan a ngi ni ay waay li ma am si bori werd loolu xeet la ci doyadal tariqa bi ndax la la yitteel faatoo ko doyadal werd nag bokkul ak bàyyi werd bi mais même doyadal werd bu yàggee mën na la dog ci tariqa bi ndax itam bu yàggee leneen lay firi cheikh na tiyaan yi radiallahu anhu moo wax ne képp ku jël sama werd bi dem ba mu neex la nga bàyyi ko définitivement walla nga doyadal ko moom ñaar yooyu la boole bàyyi définitivement la nirale ak doyadal ko doyadal ko mooy ñetti weer a ngi nii wertu ma jekkee demaat yestu toogaat deux ans ngi weer werd ma yestuwaat toogaat ba yàgg werd ba mu neex la nga tegaat wala nga dikkee fay loolu xeet la ci ne tegoo tariqa bi fen daanaka xaw ngaa yor atteb ku ko bàyyi ñaar yooyu la cheikh boole ku ko bàyyi définitivement wala nga sous-estimer ko te mooy doyadal gi nga xam ne nii boo defee tey suba nga bàyyi wala nga dëkkee fay bor ak yu mel noonu nee na ñaari yooyu ku ko def ci sama tariqa da ngay alku di xalat bihi al uquba ay pénalité yu metti dina dal sa kaw wa yaatihi al hilaak dangay alku te Cheikh Omar nee na lii bu ko Cheikh waxee moom du ay waxi boppam mais mu ngi ko jëlee ci yonent bi yonent bi moo joxe tariqa bi kon itam bu am ay pénition moom moo koy joxe wa qaala radiyallahu anhu man taraka wirdan min awraadi almashaayix li ajli adduxul fi tariqatina hadihi allati sharafaha allahu taala ala jamii turuq wa amanahu allahu fi dunia wal axira fala yaxaafu min cheyin yusibuhu la min allahi wala min alrasuli sallallahu alayhi wa sallam wala min cheikhi ayan kaan min al axyaa wa min al amwaat wa amma man daxala zumratana wa taaxara anha taxillu bihi almasaa'ibu dunyan wa uxran wala yacuudu abadan pour confirmer lii rek moom it Cheikh na Tiyaani waxaat na beneen sitation boo xam ne moo gën a sax dëggu moo gën a tabaarakallahu objectif nee na képp ku bàyyi beneen tarixa maanaam xam nga tarixa tiyaan dañ ne la bul ko bàyyi boo ko bàyyee da ngay alku léegi nga ne waaw lan moo tax moom muy accepter keneen bàyyi beneen tariqa pour jël ko moom mu ne ñaari bokkul parce que tariqa bi yonent bi direct mooy sëriñ bi yeneen tariqa yi yonent bi dafa am intermédiaire ak sëriñ boobu léegi nag wax dëgg yàlla ci zahir rek ku gisoon yonent bi bàyyi ko fa dem ni dina ngay dabu ji keneen donte kooku xaritu yonent bi waaye da nga dul xam ndax connectivité bi dina ñëwaat ci moom wala déet du dëgg looloo tax Cheikh Tijaan ni képp ko bàyyi beneen tariqa jël sama werd bii wala jël sama tariqa bii dalalal sa xel amul benn tasarruf maanaam genn ak ngaañ gu la mën a dab euh, ci jël gi nga jël sama werde ak gannaaw bi nga bàyyee boobu ngaañ goo xam ne moo xam ci yàlla lay jóge wala ci yonent bi ndax ñoom ñaar ñoo moom tariqa bi wala itam muy jóge ci sëriñ bi nga xam ne nii maanaam moom nga jàppoon tariqam am na koo xam ne nii ci akaabiru Mauritanie yow yi nettali nañu ne dafa bokkoon ci tariqa diw xëy xëy dégg ngëneelu tariqa tijaan ya mu dugg ci après sëriñam feeñu ko sëriñam feeñu ko di ko gëdd gëdd gu metti lu tax muy bàyyi tariqam ni ku koy yedd waaye mashhad bi mu ko gisee yonent bi moo toog ci benn fëtëy Cheikh na Tiyaani toog ci suufam sëriñ boobu toog ci suufam ñoom ñaar ñu toog moom waa ji mu toog seen diggante sëriñ boobu nekk lu tax nga bàyyi sama tarixa di ko tëkku daal xam naa doon xool nag pour yonent bi ban réaction lay def waa ji jaxle nee na mu ngi xool Cheikh na Tijaan yi pour moom mu tontul ko Cheikh sëgg rek euh, yonent bi itam di xool waa ji waa ji tëkku rek yonent bi moo jekki-jekki euh, dóor mbaggu waa ji nekk ma ne bàyyil ñii ñi yàllaa leen teralal boppam ulaayka alladina hadahum allah fa bi hudaahum iqtadi ñii yàlla moo leen teralal boppam waa ji nee na bi ma yeewoo ci laa xam ndeke dimension yi bokkul ndax yonent bee ngi teew Cheikh na Tiyaani amee yar boo xam ne jéggi na dayo ngir xormal ki sëriñam moom loolu fekk ko ci non seulement fekk ko ci booleeg nag di ŋaññ nit wala di ko yedd façon boo xam nee na ci la xam ne kon dimension yi sax bokkatul foofu du dëgg waaye la yonent bi tontu nag moo gën mooy bàyyil ñii ñii moom Euh, VIP lañ ci wax waxin kon sëriñ si ki nga bàyyi am ñëw ci tariqa cheikh bu doon gaañaate day am ci yàlla la mën a jóge ak yonent bi te ñooñ ñoo ko cautionné léegi na contraire bi nga dul am ndax kër yàlla kër yonent bi ku fa génne xamu ko lay hébergé yi seizième charte bi mooy adamu tasadduru lil i'ta'i min gayri iznin saxiixin bil i'ta' <clears throat> قال رضي الله عنه كما في الجواهر المعاني ذكر ذكر أهل الكشف أمورا إن من فعل واحدا واحدة منها ولم يتب منها يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى وهي دعوى الولاية بالكذب وادعاء المشيخة وهو التصدر لإعطاء الورد من غير إذن انتهى intahal muridu minha euh, seizième bi moom it bu dangereux la te taalibe tijaan bu ne war na la mooy nga bañ a nag euh, samp sa bopp ne da maye werd te fekk amoo ci ndigal mag ñi daan nañ def sax ku ci am ijaasa da koy nëbb di ko jaamoo yàlla ngir rek bañ a exposé wu di maye werd rawatina nag nga am fit yow dëgër fit ba tabaarakallahu ne dangay ngay may werd te amoo ci ndigal nee na loolu Cheikh Omar nee na dafay dog taalibe bi Jawahirul Maani moo ko wax Cheikh na Tiyaani ne pourtant de sëriñ si am kashfu tudd nañ ay mbir yoo xam ne ay mbir yoo xam ne ku ci dëkk ba dee génn ci lislaam maanaam ku ci dëkk te tuuboo ci doo deewe ci ngëm yàlla yàlla ñu ci yàlla musal ak loo baax baax baax cheikh ne ba ci jëkk mooy woote wilaaya bil kësi bi ci fen dafa insister nag maanaam kii woote bul gis na rek kuy woote ku ne moomoom li déedéet woote wilaaya te yow mi woote ndaar dara xam nga waxo dëgg hmm? xam nga waa ji nga xam ne ni day wane ne rawxaan yi dañuy wax ak moom mu enregistré benn son tekk ci biir néegam euh, bàyyi ba nit ñi ñëw rek mu déclenché enregistrement boobu ne déglu leen euh, rawxaan yi xam nga kooku farceur la nit ñi daanu ci suuf ñi jooy ñi mbëkk miir yi mu naan waxoon naa leen dama naruma ci woon fekk sax waaye hmm? xam nga loolu yaatu na léegi boole ñu nekk ci rajo yi nga xam ne dañuy com ay complice lañ ak caméraman bi ak kii bi bu ko defee doo xam ñoom théâtre la ñuy def wala lii gis naa ci koo xam ne dafa jekki-jekki ne dafa aalu commencé di tëb di dal ki waaj naan kan déet déet sëñ aalu mu naan non après dafa mujj a dugg ci néegam bi mu duggee ma ragal na dafa dem pour ree koi ndax comédie ku ko def ba pare après di nga soxla vidéo ci ree caméraman bi itam wër na ma ne mu nga tëdd moom di ree bu ko defee public bi nag ñoo naan l kii yéeme na dafa xaalu yooyu mooy daawal wilaayati bil kasib yaatu na nag woote daal loo nekkul ci loolu neex mel na ni neex na nag ci nda tàmbali gi ndax dañu wax ne alkane bu dee bu dee tàmbali dafay neex waaye boo ko toppee di nga yëg ne dara newu fa te dara nit nit ñi ngay bëgg ñu toppale itam ñoom jaruñu ko te bari na lu nit siiwee boo toogoon ak moom di nga yëg ne dara xewul Cheikh na Tiyaan nag nee na loolu xamoon xam nga toog nañ fii ne ne day xar géej gi ñu jekki-jekki mu ne noo naroon naa ko sax mais mujj naa ko bàyyi euh, moom foog na ne pare na maanaam woote nga ko après jeex na nit ñu fàtte nañ ko mais yàlla du ko fàtte parce que nag yàlla moom jàmm yi daawal wilaaya bil këdib baaxul te mu ngi yaatu taxul nag koo dégg rek nga ne day woote wilaaya déedéet taxul itam koo dégg ñu ne ci kësib la ne déedéet waaye kenn ko ne daal atte sa bopp yow xatta mag ñi dawoon loolu tax na euh, ku ci masaana am xaal ci yàlla da koy nëbb te léegi nga jekkee kenn ni ci xaal bu rëy bu xamee ne bu fa yàggee nit ñi comprendre la day dem tëju ji loolu dëgg waaye fekk koo xam ne nii dafa veey guddi gi bët yëpp xonko mu toog ci public bi di toxoñu rek di yàkkamti ko ko laaj lan la mu ne non biig dama nelawul xam nga biig nangam yooyu baaxul ndax yàlla ngay defal te boo yàggee di extérioriser li nga nekkee day mujj yóbbu la ci cadre boobu yàlla ñu ci yàlla musal cheikh nee na dafa am ay risque nag mooy loo góor góor góorlu ndax sûrement ki woote wilaya sax ci lu dul dëgg certes mu ngi def leneen yu yeneen yu baax mais teewul balaa dee yooyu yëpp dañ koy rocci ndax euh, fen baaxul nee na bu ñaareel bi mooy wooteeg cëriñ wooteeg cëriñ boo nekkul maanaam boo nekkul ñu laaj ka lan mooy woote sëriñ boo nekkul mu ne mooy di woote ne mën ngaa maye werd mën ngaa tarbiya nit ñi te yow newoo foofu woote daal xam-xam yoo nekkul ak cër yoo nekkul te loolu sax xëy na tasawuf la waaye même ci sharia dañ koo tere mu ngi mel ni yonent bi nee na képp ku créé génte goo géntul yowmal qiyaamati yàlla dina dina na ko réaliser ko ku toog rek ci jotaay mu neex lool kii naan gént naa ba ki dem gis yeneen bi kii naan Cheikh laa gént kii naan Mam Maodo laa gént ku ne wax nga xool xool xamaloo nga ne man bi ma gént moo gën a garaaw sax Jibril laa gént Jibril nee na lii Jibril nee teew li ngay wax keroog nga koy doog a dégg xamul kéemal la te mu ngi yaatu yonent bi neen yow qiyaam punition yi mooy léegi la nga géntoon yow la créé woon léegi def ko réaliser ko foo koy réaliser euh, kalaa bi si saw bay zuur oh, baaxul baaxul te yooyu yëpp euh, nit ñi àgg fenn nga bëgg fa àgg tey tey tey te jombul boo teeyoon mën nga am sax lu ñu amul ndax yàlla nag ku ko neex lay jox cër bu la rëcc tey boo boo teeyee man ngaa am ëllëg tabaarakallaahu loo foogul woon bokk ci liy dog nit ci yàlla wala bokk nga xam ne dafay maanaam dafay dafay may nit mujj gu ñaaw mooy bay bari looy lor mbindeef yi ci sa làmmiñ Cheikhu Tijaan loolu wax am na nit ñoo xam ne clash nit ñi rek lañ fi nekk waaye saa yi gëj déggoo li di wax ah kooku am na nit ñoo xam boo leen gisee da ngay ndax xam li ñu man ci wax safaan du dëgg yàlla ñu ci yàlla musal loolu Cheikh nee na nit boroom kes fu yëpp xam nañ ne ku ci dëkk doo deewe ngëm cheikh omar nee na assabiu achar ixtiraamu kullu man kaana muntasiban ila cheikh radiallahu anhu wala siyama alkibaar min ahli alxususiya min ahli hadihi tariqa wa qaala radiallahu anhu inna lana martabatan inda allahi tanaahat fi lculwi ila xaddin yaxrumu dikruhu laysa huwa ma ufshihi lakum walaw saraxtu bihi la ajmaca ahlu alxaqi walirfaan ala kufri fadlan amman adaahum walaysat hiya allati dhukirtu hiya allati dhakartu lakum bal hiya min waraiha wa min xaasiyati tilka almartaba anna man lam yataxafaz ala taxyiri qalbi min asxaabina bi adami xifdi xurmati asxaabina taradahu allahu an qurbihi wa salabahu ma manaxahu kii itam charte bu raglu la te taalibe tijaan bu ne war na ko ndax 23 yi Cheikh Omar di wax kenn ku ne jàpp na ne daf la war yii yooy def la yii yooy bàyyi dix-septième bi mooy nga ormal képp ku askanoo ci Cheikh na yi waxul nga ormal Cheikh na Tiyaani kooku moom c'est le minimum mais ku askanoo ci moom baatu askanoo nag mooy koo xam danaan tiijaan danga naan tiijaan ci moom soit que moo xam nag taalibi bi la ñu ne kii taalibi tiijaan la wala ñu ne tijaani la kii sëtu Cheikh na Ahmed Tiyaani la wala ñu ne muqaddam tijaani la kii de muqaddamu jëwriñu Cheikh na Tiyaani la wala ñu ne xalifa bi la ñu ne xalifa cheikh na tiyaani wala kii ñu ne soxna cheikh na ahmada tiyaani wala sëtu cheikh tiyaani euh, wala soxna doomu cheikh na tiyaani maanaam lépp loo xam daal buñ ko waxee dinañ ko askanale tiyaani après nee na xormaal kooku yow daf la war en tant que tijaan te defe naa kooku itam c'est c'est c'est normal ndax mënoon nekk ci benn système doomu boroom kër ga bu ñëwee nga dóor mool yen ka ko jarbaatu borom kër ga bu ñëwee nga fa xayat dóor jaamu borom kër ga bu ñëwee nga fausete mu daanu waa bu borom kër ga génne nga raam nuyu fóon loxo bi nekk yow rek laa yaakaar àdduna ak alaxira li nga wax dëggal <laughs> contenu bi wanew ko wala dëgg ah kii man dama dégg li nga wax mu ci lan noonu mun a dégg naa diw da nga moom mu ne kaay ma wan la kay jugaat fekk doomu borom kër ga jëlati mool sànniwaat ti ci kanamu borom kër ga sëriñ bi bëgg a wax wala borom kër ga nga delluwaat ci moom raam nekk di man kay yow laa yaakaar àdduna ak àllaxel lii moom sa yoon nekku ci ah bu yàggee yoonam nekk ci rek Cheikh Tidiane noonu la ñëpp mel ci moom koo xam ne taalibim la ba ci ki jël werd tey jàppal ne doomam la ndax nu awlaadu ñu ñëpp ay doomu Cheikh na Ahmed Tidiane la kon bul ci xeeb kenn na sant Gajaga wala mu sant Njaay wala mu sant euh, Tidiane wala mu sant Aydara wala mu sant euh, booy nu mu mën a sant doom la ci Cheikh na Tidiane yi le fait que mu ngi askanoo ci Cheikh rek mag ñi ragal nañ xattaa ba ci ki jëlagul werd sax jàppal na rek comme nee na yi la danga ko war a xormal xorma goo xam nii yaa ngi koy xoole Cheikh na Tiyaani ngir bañ lenna loo jëflanteeg moom mu transcender dem ba Cheikh na Tiyaani mais nag atte boo gis dafa am diw maanaam tàgge boo gis am na amul am na jàppal diw mu ne nag laa siyamal kibaaru min ahlil xusuusi rawatina nag boroom cër yu mag yi boroom cër yu mag yi nag tuddewuñu ko âge mais séenu nañ ko ci mag mi am quatre-vingts ans quatre-vingt-cinq ans quatre-vingt-dix ans xale bu ndaw di ko ñàkk teggin loolu loolu ñàkk teggin piir la waaye itam borom cër bi donte muqaddam la yow yaa ko mag sax fuuf waaye muqaddam la ci tarixa bi wala kii de xalifa cheikh la yaa ko mag fuuf ci âge mais cëram moo ko yóbbu ci âge u mag kon na ko xormal ndax ñooñu yàqoo ci ñoom ci ñoom la gën a gaaw moo tax ñu séenu ci ñoom respect additionnel Cheikh Omar ne loolu li koy firnde nag mooy benn wax bu citation bu Cheikh na Tiyaani wax te wax dëgg yàlla fii donte fii dañ ko fi indee ci cadre prudence mais cër bi rëy na trop Cheikh na Tiyaani dafa ne inna lana indallahi am naa ci yàlla am nañ ci yàlla martaba billaay am naa ci yàlla martaba boo xam ne kawe naa kawe kawe kawe ila xaddin ba yegg ci daraja joo xam ne yaxrumu zikruhu dafa aram ma koy tudd maanaam seena Tijaan nee na martabaam ci yàlla ak station kawe naa kawe kawe ba moom nee na xaw ma kan waaye moom araam na ci làmmiñam mu tudd ko mu mel ni assistance bi ak yow mi déglu danga nga sa gémmiñ ne waa moom ak moom li mu wax moom ci boppam ndax moom Cheikh kenn waxalu ko dara li ñu xam ci moom yëpp moom moo ko waxal boppam maay lii may lii maay lii tey nag mu ngi ñëwaat ne sama cër rëy ne ba nga xam ne araam na mu tudd ko mag ñi jaaxle ne ko li ñu wax rek li ñu wax nag mu ne laysa huwa ma ufsihi lakum bokkul ak li ma leen wax de maay lii ak maay lii ba mu yéem leen loolu bokkul ak c'est ça rien à voir par rapport ak sama cër ah loolu na de hmm? xam nga boo xamoon mel benn milliardaire boo xam ne kaar euh, tabax na kër goo xam ne ni cinquante deux milliards la jënd oto boo xam ne deux milliards la jënd lii jënd lii nga ñëw di yéemu loolu mu ne noonu lii sama argent de poche bu ma war a commencer la rek mais sama compte sax laalaguma ko xam nga yow di nga am cas Cheikh nee na li feeñ ci tariqam yëpp ñu di ko tudd bopp ba tey nee na du cërëm moom lii benn argent de poche rek bu muy jox nit ñi pour ñu jàppandi ci la ba ëllëg waaye moom lim doon moom sañul wax ko mu mel ni dañ ko laaj lu tax xanaa dañ la tere nga wax ko mu ne déedéet walaw sarraxtu bihi la ajmaa ahlul xaqi wal irfan alaa kufri gis nga bés bu ma ko waxee woon tel kele ni mu nekkee nee na nit yàlla yi gën a mag ci àdduna bi ñoom ñooy concerté wu dajale dajale seen xalaat ak seen wax ne nag vraiment observé nañ waxu waa ji mais dëgg dëgg dëgg waa ji génn na ci lislaam ala kufri nee na ñi ëpp xam-xam ci wàllu yàlla ñoo ñoo dul mën a dégg wax ji ba ba tudde ka laa wax kiifar nee na fadlan am man adahum rawatina ñi ne ci suuf kon ñi ne ci baas bi nag nit yàlla yi borom kashf yu mag yi bu dee ñoom la wax ji ëpp seen bopp bañ ne noo kii moom génn na ci lislaam kon ñi ne ci base bi moom jotatu ñoo wax xam nga lii noppal na képp ku gëm cheikh ndax cheikh dañ koy réere bi muy dund réere ko bi mu faatoo di ko réere ba yowmal qiyaamat yowmal qiyaamat nag ca la ko yàllay feeñal feeñ feeñ gu fës gi doonte ku ne xam na ne axiru zaman dina am atte yowmal qiyaamati yu bari dina feeñ ci moom waaye feeñ gi digg yowmal qiyaamati moo tax léeg-léeg nit wax dara ci cheikh nga gis ku ko ëppale naa non li mu wax dafa ëpp cheikh li mu wax moo ko gën a raw moom nee na ak li mën a feeñ yëpp du un sur mille ci cëram ndax nee na moom amul fitu wax dëgg-dëgg cëram ndax bu ko waxoon ñi jàpp ne ay sëriñ lañu ay nit yàlla yu kawe ñooy dajane wax dëgg yàlla waaj génn na ci lislaam kon ndekete di wax ci cheikh bañ ne yéefar nga loolu kon kon yéemewul ndax loolu moom moo ko waxal boppam te li lay wan ne sëriñ bi réere nañ ko xam nga lu doon wax ci ku ñu réere mais sëriñ bi dañ ko réere woon dañ ko réere lool wallahi boroom buyatul mustafid mu ngi nettali ne Seydi Mouhamadul Hafiz Ashinqiti bi mu jógee fii ci Mauritanie di dem aji Makka ànd ak benn waa joo xam sijil mas la dëkk pour ñaan yàlla ñu mu dajale leen ak sëriñ bu leen mën a orienté ci yàlla Seydi Mouhamadul Hafiz nee na bi muy wër Kaaba gi ba tolloog maqaamu maam Ibrahim fa Cheikh Omar daje woon ak Seydi Mouhamadul Ghali la am ku ko déy ne ko sa sëriñ cheikhu ko Ahmadu Tijaani sa sëriñ mooy Ahmadu Tijaani nee na moom turóow keroog la koy doog a dégg xool ki mu ngi dëkk Mauritanie ki dëkk Maroc proximité bi waaye ba Makka déggul turam ndax dañu étouffé tur wi ak message nee na après mu topp nag mu mel ni dafa laaj ñu ne ko mu ngi dëkk muy laajte di laajte ba xam ne kooku ndeke mu ngi dëkk sowu jant kon mu sant yàlla ndax jege na ko buñ biñ nekka Maroc Maroc la basé wu nee na mu dem ci rak bu maanaam euh, kuréel gi nga xam ne ni commission bi nga xam ne ay marocains ñoo ci ne doon leen laaj ndax xam ngeen Ahmed Tidiane ñëpp ne waaw xam nañ ko xam nañ ko kay xam yow foo déggee turoo xam nañ ko mais nee na lañ ca teg ci ay kaddu nee na dafa waaru ci yàlla ñeneen ne ko mooy njibar boobu. ah kooku de kooku njibarkat la ñii ne ko non day soppi xaalis ñii ne ko day day luxus xam nga moom bari woon wërsëg Seydi Ahmed Tiani bari woon wërsëg ba ñu bari foog ne dafa yor xam-xamu kimia nga xam loolu ñu ngi koy tumal waa këram ba tey ndax sag bi mu def ci ñoom léeg-léeg nga gis ci njabootam boo xam ne amul sax xëy na lu mu ndekkee mais bu solo ba génnee nga ne àdduna bi tukki na bu ko leen leen ji ñu ngi nii liggéeyuñu ba pare bu ñu soloo nangam fekk déedéet nag sutura bu yàlla def ci ñoom mais nee na ñuy dégg kenn ku ne naan kooku ñii naan njibarkat la ñii naan kooku daal benn algérien bu fa ñëw la nit ñi topp ko naan ku nekk di wax ci moom euh, nee na moom mu am choc ndax li mu dégg ak ki ñu koy wax nii du benn nee na bi ñu demee daal bay waa ji génn ci la kenn mer ne yéen mënu leen màndu kooku di nit yàlla bu sell ah ñaa nga xoola dof bi ñoom loolu lañ ko jàppee après nag kooku moo ko déy ne ko fii njabootam ñu fi mais demal ci beneen commission tel di nga fa fekk ñu la mën a wax ci moom lu leer man xaw ma ko sax dëgg-dëgg mais nangam mais moom bi mu génnee nee na dafa jaxle ndax ku ñuy wax ne Maroc la dëkk ñi jëg du ko dëkk Maroc ñu seedeel ko wax yu wàcc yi ëpp na bi mu demaatee ci beneen catégorie bi ci la fa fekk nag tabaarakallahu ndekete ñoo xam ne ay taalibi cheikh lañ ci boppam ñu waxtaan ñu ne après wax ci moom yu baax yu kawe yu tolloog moom li mu njortoon ci moom ginnaaw gi nag lañ ne ko d'ailleurs sax moom muxaddamam ak xalifaam mu ngi fi dañ la koy tegtal nga dem ci moom mooy gën a wér muy Seydi Mouhamadul euh, euh, Seydi Ali Harazim muy ba mu demee Màkk après na Cheikh Hafiz ca la dem ba ci Seydi Mouhamadul Ghali euh, non Seydi Mouhamad Ali Harazim mi taalif Jawahir waxtaan ak moom ci ko kooku nag satisfaire jàngal ko yu kawe kawe ak yu rëy yu mu gis léegi nag en retour naa ci la jàdd nag fas dem ci Cheikh na Tiyaani mu may ko werd après nag xamal ko yu bari yu mu waroon a xam tee ko fa ay jamono ginnaaw gi la ko ijaazal yewi ko mu ñëw nag sinqit ba ñun ni ñu jotee ci silsile boobu ndax silsile boobu liñ ci jotal mooy kooku mooy sëriñu góor gi Mawlud Fall Mawlud Fall mooy sëriñu Abdou Karim Diallo Abdou Karim Diallo moo may Cheikh Omar Werd comme ni mu ko nettalee ci gannaaw euh, lan laa bëgg a jàngale Cheikh Tijaan yi kon ba fii may waxee yow am na ñu jàpp moom nekkul ci diine ji te moom nee na li waroon def loolu mooy réalité dëgg-dëgg bu ko waxoon sax nit ñi weddi ko mais defe naa xaw ma wax na kaak waxu ko waaye nit ñaa ngi koy weddi ba tey te moom waxul dara mais fii nii jublu ci tàgg boppam dafa am rek lu mu bëgg jàngale ndax di nga ne waaw lii la wax yii lan la joteeg charte yi ñuy jàngale Cheikh Tijaan na nag martaba boobu kawe gi mu kawe nga xam ne un sur mille bi sax ñëwul kawe googu tax na bokk na ci cër boobu képp koo xam ne dooma wottu dooma wottu ci dima merloo ci samay taalibe ku ko dul faral di def yàlla dina la rekki dàqale ci xadram bu dee amoon nga dara ci may mu rikki ko nanguwaat ko nga dellu à zéro wax na dëgg parce que marteau boo xam ne grandeur mayu ko mu mu wax ko moom mayu ko itam mu ñëw ci àdduna grandeur boobu ku ne xam ne ne bu doon jaan juy nelaw la ku ko yëngal balaa tëddaat di nga am problème du dëgg cheikh nee na képp koo xam ne sama xalifa merloo nga ko wala sama taalibe wala sama muqaddam bu wér nga merloo ko automatiquement man damay mer te bu ma meree li lay gaañ kenn du xam nu mu toll ci musal moom nag nee na martaba mu leeralu ko ak li ci li ci feeñ yëpp nii te ba tey mu ngi feeñ sëñ Babacar si way na ba sonn Baye Niass way na ba sonn Cheikh Bes mag ñëpp ku ne way na mais mu ne moom moom martaba mu waxagu ko daal lii moom xam hors d'œuvre rek la mais plat entre euh, euh, ak entrée mais plat plat de résistance bi daal nee na du pour àdduna xaju loolu nag xam naa ko xool jugaat xool ndax li xew yëpp mu ne moom tàmbaleegul euh, dix-huitième charte bi xam naa Cheikh Omar moom baax na ndax yii ci charte tarixa am nga yaatu la yaatu la tërëm euh, at-taharatu al-badaniyati wa thawbiyati in amkanat léegi nag mu jëm ci charte yi nga xam dafa embrasser direct werd yi mooy yow mi werd ni nga xamee ne dafa laaj laaj laaj ci yow taxaratu xadas ak xabas mooy nga am laabu maanaam yére ak euh, barab werte bi itam amoo droit di lazim te amoo njàpp wala ngay lazim wala ngay wasifa te sa yére bi dafa taq wala ngay lazim wala ngay wasifa te fekk bi nga toog dafa taq sobe euh, wala nga amee janaaba déedéet kon danga nga war a dem laabi ji sangu bu dee sangu dafa war ci yow wala jàpp bu dee dafa jàpp ci war war ci yow sa yëre itam bu dee dafa am sobe nga changé ko euh, ndem mën na nekk nag ndem mën na nekk boo ko déggee mooy lislaam du tëj bunte bi ba mu jeex ndax ñàkk tëj bunte moo tax mu waral tiim tiim mu ngi aju ci ki ñàkk ndox at taasiu achar mooy tahaaratul makan kooku daf ko séddale mooy laabuk barab bi maanaam jàkk ji ngay laazime wala kër gi ngay laazime wala sa néeg sax bu dee sa néeg la na doon foo xam ne fu fu set la waaye foo xam ne nii euh, set ga nekku fa xataa ba ci place bi bëgg nañ nga def fa parfum euh, def fa cuuraay ba nga xam ndax rawxaan yi ak malaaka yi nga xam ne nii ñooy dundal barab yooyu xeet yu neex yooyu daf leen di dundal euh, vingtième bi mooy aljuluusu wa istiqbaalul qibla illa li safarin walaw qariban jiddan aw kaana fi jamaatin euh, vingtième charte bi mooy yow mi laazim wala yow mi wasifa wala yow mi xadara individuellement nga jublu penku danga nga war a jublu penku ni ngay toogee taaya di julli noonu ngay taaye euh, noonu ngay tooge bañ a tàllal nag say tànk bañ a wéeru bañ a def dara waaye nga jublu penku directement lu dul nag ngay tukki xam nga kii tukki dugg ci oto kooku bu ne day laasim naan e oto bi jublul côté penku ndax damay laasim kañ ngay yegg fi nga jëm doo yegg <laughs> kooku kon du sart ci yow walaw qariban jiddan aw kaana fi jamaatin wala boog bu dee da nga nekk ci mbooloo mbooloo ñuy wës fa ñëpp mën nañ jublu penku déedéet kon wala xadra kooku ajuwul ci lool alxaadi wal ashrun adamu alkalaam illa li darura wa qaala fi jawaahir maani wa shartuhu almuxaafada ala xuduri salawaati fi awqaatiha fi ljamaati in amkana wa tahaaratu albadaniyati walthawbiyati walmakaniyati waljulus wastiqbaalu alqibla wa adamu alkalaam illa li darura mu andiwaat ñaar fukkeelu charte bi ak benn xam naa fii la yemoon ne ñaar fukk yi ak benn kenn ku ne boo xamatul doo tijaan Euh, moo di euh, maanaam al julusu mooy maanaam nga bañ a wax ci booy laazim gis nga booy laazim wala ngay wasifa wala ngay xadara maqaamu julli la amee boo ci waxee rek day yàqu lu lor bokk lor euh, nga xam ne sëriñ bi daan na jàngale ne nit koo xam ne dafa dem ba wax dab ko mënul ñàkk nga wax waxal benn baat boog lu dul ñaar lañ la ci may mooy sa pàpp ji la jur di wax ak yow da ngay dagg laasim bi wala wasifa bi wala xadara bi wax ak moom ba mu àggal sa yaay bi la jur noonu de même sëriñ bi la may werd noonu ñeenteel bi mooy soxna si nga xam ne jëkkëram mooy wax ak moom waaye ñooñu itam ñaan nañ leen privilège boobu bu mu tax rek fu ñu gisee ñooñu di werda ñu ñëw di wax ak ñoom waaye nag ñooñu moom Sidi Hadj Malick nee na radiallahu anhu feek ñu ngi wax ak yow doo arrêté dul ñooñu nag benn baat lañ la may euh, nga wax ko te day fekk sax baat boobu mënul ñàkk ñu wax ne wax direct moo ko wax téléphone ñooyam bu dee sa baay moo lay woo téléphone wala sa yaay euh, wala sëriñ bi dafay amee xàq boobu euh, bokk na ci charte yi Cheikh na Tiyaani wax na ci jawaar maani ne chartu tariqa bi mooy nga respecté julli juróom di ko def ca mbooloo ma ca waxtu ya ak ndem mën naa nekk nga làpp ci yére ak euh, ci yaram ak ci place nga toog waaye nga jublu penku waaye nga bañ a wax lii la ci jublu woon bañ a wax euh, Cheikh Omar nag di tuddaat référence am yi mu daan def mu ne wa fi tuxfatil وللذكر آداب لا بد من محافظتها أن يكون على طهارة كاملة من حدث وخبث وأن يستقبل القبلة إن كان وحده وإلا تحلقوا وإن ضاق بهم المجلس اصطفوا وفي الخلاصة المرضية الثاني من الآداب الذكر من آداب الذكر الغسل أو الوضوء الثالث السكوت baada kalaami dikri ljuluus ala makaanin taahirin mustaqbila alqibla in kaana waxdahu wa huna intahat li shuruti lazimati al amma ñaari téere yi mu tàmm nga xam ne ñoo ko gungeej téere bi muy tuxfatul ixwaan ak xulaasatul mardiya nee e, ñoom ñaar ñëpp wax nañu ci tabaarakallahu zikr mu ne zikr dafa am ay teggin yoo xam ne mënta ñàkk kii zikr mu am ko nit koo gis yor na kurus waaye bariwul koy am soxla ba ñaan yàlla ci kurusam soxla bi faju parce que yaa ngi werd mais li werd laaj ci teggin xorma nekkoo ci mu ne teggin dafa amee ay xorma bokk na ci nga laab ci biir ak ci biti mooy xadas ak xabas nga jublu penku bu dee yow rek la bu dee mbooloo ngeen nag te eh, jotaay ba xat nga xam ne mënu leen wër da ngeen di sàppe rek ñuy toog fii ñuy toog seen gannaaw wàññiwul dara xulaasatul mardiya nee na te ñaareelu teggin yi ci zikr mooy nga sangu farata bu dee da nga amee janaaba wala nga jàpp ndax loolu mooy tax lumière bi mën a ñëw direct ndax nit bu sobewoo lumière bi dafay xaw wàññeeku lool ci moom ñetteel bi mooy nga noppi kenn du zikr maanaam di zikr janook tele wala di zikr di jublu maanaam di déglu rajo léeg sax nga dégg benn passage ci télé bi wala rajo bi nga nga muñ muuñ ba daanu ci suuf noonu te ne da yor kurus gi xam nga loolu farce la gën a nuru hmm? wala ñi ay nit di waxtaan fële nga yor sa kurus ne da ngay laasim kat di bokk léeg-léeg nga hmm, hmm, continuer werd bi pour warde ne yaa joxe say de sel kenn war ngaa wax nit ñi ci loo ne ci waxtaan nga ne wala dangay wax ak yàlla ndax ñaari wax moo mënul na ne di wax yàlla di wax ak nit ñi mënta ne kon faw nga noppi yow miy zikr te ñun miin nañ ñoo xam ne nii wala daan nañ gis nit ñoo xam ni dañuy zikr ba pare janoog télé bi amee seen kurus wala sax am na ñoo xam ne dañuy yor kurus gi ci nijoor bi yor commande bi ci càmmiñ bi léeg ñu zikr ba yàgg zappe feneen ñooñu wax dëgg yàlla dañu wéttaliku yooyu nag day jur pour nga jariñoo leeru zikr dafay xaw jafe bokk na ci li borom xuraasatul li mu wax mu ne gannaaw gi itam nga toog ndax di zikr euh, wax dëgg yàlla toog ci canapé wala fauteuil bu leer wala farankulaay sa kaw lal araamul nag araamul mais du tegginu zikr lu dul ko am ngant bokk na ci nga toog ci barab bu làpp fu mel ni jàkkaloo tax ñu bëgg ko wala zawiya ba pare nga jublu penku ndeem yow rek la Cheikh Omar nag nee na vingt trois chartes yi ma la bëggoon a jàngal fii la yem yàlla ñu ko yàlla fayal mu ne nag léegi ñaar yi ma la waxoon mooy ñëwaat pour nga mat tiijaan dëgg-dëgg euh, moo koy def vingt vingt vingt trois mu ne wasaani wal ashrun liman qadara alayhi istixdaaru suratul min bayni awali dikri ila axiri wa yastamirru wa yastamiddu minhu wa acdam min dalik wa arfa wa akmal wa arfa istixdaaru suratul mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñaar yi nag ku ko man yow rek la nga jublu nga nga teewlu jëmmu yonent yàlla muhammad booy laazim wala ngay wasifa da ngay teewlu jëmmu yonent yàlla muhammad nga ne ma masuma koo gis ma ne la boo dee mas nga koo gént nga teewlu loolu boo ko mosut a gént mosoo ko gis nga teewlu rek jëmm ju rafet ju taaru ju baax lool mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag boo ko mënul nga teewlu jëmm Cheikh na Ahmad Tiyaani boo amee fotom nga teewlu ko yooyu yëpp boo ko mënul nga teewlu jëmm sëriñ bi la may werd xanaa ki la may werd moom gis nga ko Jawaahirul wax na ne bokk na ci charte yi nga teewlu jëmmu sa sëriñ bi nga jàpp ne yaa ngi toog ci kanamam ànd ak teggin Euh, nga tëbb nag ci moom ndax ñi nga xam ne dañoo tiim boolu añ lan lañ fay def ñooñu dañoo bëgg a dëgërlu dañuy añ euh, noonu nga xam ne kooku dafa dem pour tëbb ci loolu mu bëgg añ pour ame ci kartan euh, yow itam boo toogee ci lazim jàppal ne boolu añu lumière la kon bu ko defee dangay ngay tëbb ci yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, di teew lu jëmmam nga jàpp ne yaa ngi toog ci kanamam fi nga toog di lazim jàppal ne yonent bi moo toog sa kanam farankulaayu ànd ak euh, euh, personnalité ak taar nga màggal ko sa xol nga yëg ne yaa ngi sàkkoo lumière ci moom te yonent bi baax na lool ba nga am ne noo ko teewloo rek lu tuuti tuuti la ca des mën na la ko barkeelal moo tax jàpp ne kuy lazim lazim bi à cent pour cent dangay ngay teewlu yonent bi déedéet boo fa yeggul itam bu mu la metti la nga man rek teewlu ndànk-ndànk ba tabaarakallah mu ne nag li ñu jublu ci teewlu bii may wax moo di maanaam nga nga aju ci yonent bi wékku ci moom bëgg ko lool jàppane mu ngi ci sa kanam ndax xutbu bu ñuy wax Abdul Karim ibnu Saman euh, dafa wax ne euh, Euh, wékku ci yonent bi ci ñaari côté la benn bi mooy nga teew lu jëmmam di am teggin ci moom jamono ji ngay zikkër jàpp yaa ngi toog moom ni nga xamee ne saxaaba yi buñ masaan a toog ak yonent bi boobu teggin lañuy am léegi boo manee boobu moo gën comme mu masalan nga gént gis ko ci ci ci ci ay nelaw bu boobaa jëlal image boobu nga immortaliser ko sa kanam mu mel noonu xam naa yàlla waroon nañ dimbali loolu yonent bi am photo naa bu ko amoon dina noppale torop ndaw foto bu rafet waaye boobaa day nekk à la portée de tout le monde xam naa loolu tax yàlla xaññu ko waaye kenn ku ne boog na ko foto ci sa image moom yonent bu baax boobu lu mu gàtt gàtt di nga yëg ne jëmm ju rafet la baax lool tabe lool sell lool xol bi yaatu lool te rafet bu ko defee nga imaginer ko sa kanam nga teewlu ko da ngay yëg ne dafa mel ni danga am connectivité ak moom directement mu muy propulser sa ruux jëme ko ci xadara boroomam subhanahu wa taala looloo tax dangay gis ku wasifa ba pare wala ku laazim ba pare nga yëg ne dafa mel ni dafa ne ci xaal yaramam yëpp ndeysaan di di rag-rag nga yëg ne dafa bég ci boppam wala am na loo xam ne lu mu dund la fekk yonent bi moo ko sotti ci leeram sallallahu waaye loolu ki koy man góor gi Abdou Karim nee na moo di ko xam ne ni teewlu na jëmmu yonent bi ci sa zikr jàpp mu ngi teew ci sa kanam nga ànd ak teggin ak respect ak euh, orma moom même boo ko gisul itam war ngaa am xalaat ne moom mu ngi janook yow mu ngi lay gis te foo ko tuddee yëg na ko mu ngi lay wuyu au delà de sax toogaayu yonent bi bu lay yéem yàlla mu ngi toog ak yow ndax yàlla moo ne ana jëlisu man zakara ni man yàlla maa ngi ànd ak ku euh, ku may tudd maa ngi toog ak ki may tudd kon nga jàppane itam yonent bi bu toogee itam ngi ànd ak toogaayu yàlla bu boobaa mu jural la tabaarakallahu xeetu xor ma ak teggin loolu mooy bu jëkk bi nee na beneen bu ñaareel bi mooy nga tënku ci moom ci wàllu sens bi gën a kawe te mooy melokaanam yi nga xam ne yonent bi da ko mel ndax téere yi wax nañ ne nit du tàggoog melokaanam yonent bi dafa tabe boo tabee rek ànd nga ak moom euh, yonent bi dafa baax boo baaxee rek ànd nga ak moom et cetera loolooy tax ngay gis ku ñu yarul sax dëgg-dëgg yar ba ca war bu yàggee julli ci yonent bi ci julli salaatul fatiha rek day jekki-jekki commencé am jikkooy yonent bi naturellement parce que leeru yonent bi mooy taw ci ruuxam te nag leer googu na mu mel rek ngay mel mu ngi mel ni gis nga ku naan jus boo xam ne kaani lañ ko defee di nga toog benn place da ngay tëb dal tàngaayu kaani gi mooy def ci yow waaye itam ku naan lu sedd guy bu fekkoon nga tàng sax boo naanee ba pare boo tul booy toog di nelaw ndax sa yaram dafay sedd yonent bi itam jikko yu sedd jikko yu tedd jikko yu baax la amee booy ànd ak moom ci jikkoom yooyu ak melokaanam yooyu dangay ngay yëg ne tabaarakallahu yàlla itam mu ngi lay gën a yéegal yàlla yàlla may ñu loolu ndax yonent bi mooy ruuxul kulli alqaim bi tarafay alxaqaiqi alwujudi alqadim yonent bi moo nekk intermédiaire absolu entre yàlla ak ay jaamam moo tax képp ku ñu sos ci yonent bi ngay yem maanaam bépp mbindeef loo émerger émerger ci yonent bi nga yem kon diggante yonent bi ak yàlla dara dox fa lu seen intimité bopp bu ko defee boo seeyee ci yonent bi ci jëmm ak ay melokaan nga gis ne yàlla bindul ku ko gën te moom moo yore melokaan yëpp moo gën a taaru ci ñëpp moo gën a yegg yàlla ci ñëpp bu boobaa loolu moo lay yóbbu ba nga dugg ci intimitém intimitém boobu moo lay dugal ci biir xadara yàlla ndax yonent bi jege na yàlla ba su mat danaa fata dalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna wa innama kaana sallallahu alayhi wa sallam barzaxan bayna alxaqiqati walxaqiyati alxalqiyati bayna xaqiqati xalqiyati wal xaqiyati xaqiyati li annahu xaqiqatu lxaqaiqi jamiaha wa lidalika kaana maqaamuhu sallallahu alayhi wa sallam laylat almiraj fawqa alarshi qad ulimat anna alarsh gaayatu almaxluq id laysa fawqahu maxluqun fa inda istiwaihi fawqa alarshi kaanat almaxluqat taxtahu bi asriha gis nga Mawlaana Xaaji Omar dafa bëgg yonent bi da ko bëgg bëgg ba téere bi mu def ci moom kenn gisaatul téere bu mel noonu ba tey euh, moo tax avant dernière charte bi biñ ne da ngay teewlu yonent bi rek mu tarxis yi yëpp di wane kan mooy yonent bi ak lan mooy grandeur am mu ne yonent dafa jege yàlla ba digganteem ak yàlla dara doxu mu ne en même temps moo nekk intermédiaire entre yàlla ak ay mbindeefam mu ne leer looloo tax laylatul mi'raj keroog bi mu wuyjee boroomam maanaam bi ko yàlla wooloo ci guddik riñaan ga yonent bi dem na ba kawee arsh gis nga indi dañ fi benn déggin boo xam ne Seydi euh, Mouhamed ibnu Abdul Karim As-Samman moo ko wax Cheikh Omar tudd ko ñun nit ñi dañuy wax ne yonent bi rencontré na ak yàlla moom mu ne déedéet yonent bi dépasé na arsh dépassé na arsh te dañu wax ne arsh li ko féete suuf yëpp ba juróom-ñaareelu suuf mbindeef yee fi dëkk arash li ko féete kaw ba fu kenn xamul intimité yàlla la n'est-ce pas moom nag mu dafa yonent bi dépassé na arash ba dugg ci intimité yàlla ñu ne ko mais wax ji rëy na loolu foo ko mën a teg mu ne wax dafa am lu may laaj arash moom mbindeef la walla yàlla comme nag euh, arash mbindeef la wér na mooy léegi yonent bu nekkoon ci suufu arash rek day wane ne arash moo ko gën a kawe te yonent bi xam naa loolu sax waxu ku ku ku ku ku soriwul la waaye arash ci boppam benn démembrement la ci yonent bi ci boppam kon yonent bi bu rejoindre woon arash rek boppam la rejoindre mu ne nag dem na ba moom féete kaw arash ndax yàlla buggul moom benn mbindeef bu ko féetee ci kaw Euh, looloo tax léegi bi mu féetee kaw arash digganteem ak yàlla kon dara doxatu fa digganteem ak jàmm yi itam kenn doxatul ci diggante ba looloo tax yonent bi nekk intermédiaire par euh, intermédiaire par excellence de tous les temps entre yàlla et la créature nga gis ne kon loolu moom lay junj sax ci waxam ju xóot jooju ne ana min allahi wal muminuuna min nii man kat ci yàlla laa jug euh, ci yàlla maanaam ci yàlla laa juge direct mbindeef yi ci man lañ juge mais waxul mbindeef yi fi muuminoon la wax dafa jël rek ñi gën a baax ci mbindeef yi tànn leen te muy jullit yi nga gis ne kon intimité yonent beeg yàlla euh, loolu du lu ñuy euh, lu ñuy werante mais lazim bi ngay def du jaamu yàlla wasifa bi du jaamu yàlla kon lan la ci teewlu yonent bi di ut dañ la bëgg a wax ne comme yonent bi moo am bi intimité ak boroomam effectivement boo ko teewloo am nga loolu directement euh, looloo tax xaqiqatul muhammadiya doon li jëkk a feeñ ci monde monde ajsam bi ni mu njëkkee feeñ itam ci aalamul arwaax loolu octave yi leeral nañ ko te yonent bi bi muy feeñ ci aalamul arwaax boobu luy wala boog alamul xëyb boobu dara luy feeñ amul ndax moom la yàlla def muy numéro un ci tous les niveaux euh, yonent bi feeñal yàlla feeñal na ko alamul arwah feeñal na ko ci asamaan feeñal na ko ci suuf feeñal na ko ci arash feeñal na ko ci maanaam di jooru arash waaye amul benn boo xam ne niroo na feeñuwaay ak beneen bi ci des maa ngi bëgg wax ne yonent bu baax bii ñu gëm muy yont yàlla Muhammad ibn Abdullah ak Amina boo demoon asamaanu juróom-ñaar di ko fa laajte version ñoom biñ lay wax ak yow bi nga xamoon du doon benn da ngay foog ne sax beneen jëmm la boo demoon asamaanu juróom-benn laaj ko fa ñoom biñ biñ ci xam ak yow bi nga xam du benn juróom noonu ñeent noonu ñett noonu ñeent ba ba mu jeex boo boo duggoon ci biir suuf si fekk fa ay mindeef laaj leen yonent version biñ la ci jox du benn boo demoon ci kaw suuf si rek dëkk par dëkk version bi ñu la ciy jox du benn yonent bi la kenn xamul lu doon ku dul yàlla subhaanahu wa taala fenn fu ne rek ak nam fay feeñoo ba nga xam ne ni yàlla moo koy feeñal foofu xaysu laa ayna wala kayfa wa kullu maqaamin ala min zuhurihi fihi atam wa akmal min al maqaami al awal wa li kulli zuhuri jalalati wa haybati yaqbaluha al mahal xata annahu yatanaha ila ma la mahalla la an yuraahu fiihi ahadun min al anbiya wa malaaka wal yooyu muy am nag nga xam ne dimension bu ne nam fa mel ak fam fa tollu ak cir ba mu fa am ak leer gam fay dégager bokkul ak morom mi mais loolu nag mooy yéeg di yéeg di yéeg ba dem ci station yu kawe yoo xam ne nag foofu yàlla rek moo fa am accès nga xam ne intimité yonent bi foofu kenn mënu koo xam non seulement du doon ma yonent cent vingt quatre mille yonent yëpp amul ku ko fay mën a xam malaaka yi amul ku ko fay mën a xam wali yi amul ku ko fa mën a fekk parce que mooy intimité absolue entre moom ak boroomam subhaanahu wa taala looloo tax daan na wax ne lii ma allahi waqtun laa yasaau ni fihi malakun muqarrabun wala nabiyun mursal man yonent bi daan na ko wax Aïcha léeg-léeg dinaa am vraiment ay jamono yoo xam ne sama intimité ak yàlla duma bëgg lu ko interrompre xam malaaka la wala ab yonent wala saxaaba wala ku mën a doon moo tax xamal rek li nga am ci yonent bi ci cër waaye jàpp ne nag jeexal nga léppam da ngay nax sa bopp yonent bi diggante ak boroom kenn amu fa accès ba di ko xam kon yow mbokk mi yaa axi eh, eh, eh, farfa himmataka li taraahu fi madahiri al ulya al muayanat al kubra aynama huwa fafham al ishara wa usika ya safi bi dawaami mulahadati surati wa maanaa walaw kunta fi awali al amri mutakallifan fi l istixdaar fa an qaribin تألف روحك فيحضرك صلى الله عليه وسلم عيانا وتحدث وتخاطبه فيجيب فيجيبك ويحدثك ويخاطبك فتفوز بدرجة الصحابة وتلحق بهم إن شاء الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلة إذا كان هذا نتيجة الصلاة باللسان فما نتيجة الصلاة عليه بالقلب والروح والسر wa hal takunu illa maahu wa indahu taala li anna natijata al amal al zahir wa huwa alsalaatu alayhi alfawzu bilmakan wa huwa aljanna wa natijatu albatini wa huwa altaalluq waliqbal wa dawaamu istixdaari suratihi wa min alfawzi bilqurbi bilmakanati fa huwa inda allahi nazala fi maqaadi sidqin xaytu laa ayna wala kayfa fafhami al-ishaara taqa'u ala al-bishaara pour conclure nag li mu doon wax muy maanaam euh, élévation spirituelle bi yàlla jox yonent bi ba nga xam ne station bu nekk na mu fa mel ak lañ ko fay xame bokkul ak moroomam ba nga xam ne nag bu atteindre intimité ak boroomam kenn du fa àgg Cheikh Omar nee na yow mii nga xam ne nag yaa ngi bëgg yonent bi waaw léegi yëkkatil sa yitte na ko yëkki ba mu kawe lool pour nga am connectivité ak yonent bi parce que ku bëgg rencontré ku kawe nan nga war a def da ngay jéem a kawe nag yonent bi comme dafa kawe lool ba am na sax martabam yu ñu mënta dab ba tey kon yowit it na nga kawel sa yitte moo tax yow julit bi yow taalibi cheikh bi maa ngi lay dénk ngay gendiku foo toll yitte yu kawe yooyu ngir nga man di ànd ak yonent bi am benn dualité boo xam ne nii du dañati mu ne nag début bi ku ne xam ne ne avec peine nga koy amee léeg-léeg nga toog di lazim boo sa xel di daw marché ba daf day bett waaye foo ko yëgee rek delloosi ko léeg ngay laajum ba sa xel dem ca natt ba mbaa association waaye delloosi ko euh, début bi dina metti waaye fa an qaribin bientôt rek tu allif ruuxaka euh, léegi sa sa sa xol daf koy daf koy miin bu ko defee ngay teewlu ndànk-ndànk boo yàggee teewlu ndànk-ndànk di julli ci yeneen ci bi salaatul fatih wala jawharatul kamal di ko teewlu day dem ba mujj gi yàlla mën na laa may nga koy gis nii loolu nga daan teewlu d'une manière invisible ça peut être visible ci boo teewloo bu ko defee bu boobaa bis boo demee nag ba yonente bu dévoilé la boppam nga koy gis nii xam nga nag kuñ naan booy julli ci yonente bi da nga war a teewlu jëmmam waa boo demee ba koy gis nag ah xanaa wax day feeñ bu boobaa da ngay xool jëmma ji rek dama xamul nag ndax dangay julli wala da toog di ko xool rek bu ko defee nga bu boobaa di nga am ciru saxaaba yi nga xamee nii lañ daan toogee yonent bi toog nii loolu nag boo amee loo ci critiqué dellu ci fas yi ci gannaaw ndax waxoon na ne moom mën naa nekk yonent bi nee na ki gën a jege ki ma gën a jege yowmal qiyaamati ci sama xeet yépp mooy ki ëpp lu muy julli ci man ndekete kon yow miy julli mille salaat fate par jour ki julli dix mille mën na laa ëpp dara waaye nag ñu ngi laaj ndax ëpp gi mu ngi nekk ci chiffre bi ci boppam wala teewlu gi ndax nit dina def cent salaat fatiha teewlu ci yonent bi yow nga def mille yoo xamee ni mille yëpp leneen nga ko xalaat kii mën na la ëpp doole kon yonent bi daal ki mu gën a teewlu la bëgg a wax ne moo koy gën a jege yowmal qiyaamati mu ne waaw ku ne xam na ne gannaaw julli ci yonent bi lan moo koy def lu la làmmiñ gannaaw moo la mën a may jege proximité du prophète sallallahu alayhi wa mu ne kon teewlu ko ci xol ak ci ruux ak ci secret kooku fan la la war a yóbbu kon ñu ne kon fi mu la war a yóbbu mooy dem bay gis yonent bi directement gannaaw julli ci yonent bi moo la mën a may bale kon teewlu yonent bi di ko dund di conviver avec lui kooku lam lay may mooy dem ba janook moom dax biir zahir la bii baatin la te bu baatin bi moo ëpp doole kon nanga nga saxoo di teewlu yonent bi bu ko defee nga am proximité ci yàlla nga dem ba dem ci intimité yàlla ci maqadu sidqin inda malikin muqtadir bu boobaa foofu nag la ay na wala kayfa ko kenn mënu koo expliquer ki koy dund rek moo koy dund li ma la doon junj daal déggal euh, Seydi Mouhamed Ibn Abdul Karim As-Samman sëriñ la woon ci sëriñ yi nga xam ne ni Cheikhu Tidiane waroon na leen moom dafa defoon mu jaawara kon bu waxee wax yu rëy yi Cheikh Omar euh, firiwaat ko jaadu na contemporain wu Cheikhu Tidiane yi la mook yonent bi ñoo dëkkoon ci Madinatu Munawwara ku ko xamoon la itam mu ne waalam anna alwaliya alkaamil kullama zdaada maarifatuhu fi llahi sakana wa sabata li wujudihi inda dikrihi li anna allaha la yansaahu wa kullama zdaada maarifatahu fi rasulillah sallam ittaraba wa zahara al athar inda dikri nabi sallallahu alayhi wa sallam wa dalika maarifatu alwali billahi taala ala qadri qabiliyatihi wa mahabbatihi wa maarifati nabi sallallahu alayhi wa sallam nashaat min maarifatillahi ala qadri qabiliyati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa li ajli hada la yutiqu an yusbita lahu wa tadharu al athar wa kullama zdaada al wali maarifatan binnabi kaana akmal min gayrihi wa amkan fi lxadrati alilahi wa atlaq fi maarifatillah ala al itlaq ثم اعلم أن كل من رآه صلى الله عليه وسلم من الأولياء في تجل من التجليات الإلهية laabisan xalaatan min xalaa ilkamal fa innahu sallallahu alayhi wa sallam yatasarrafu bi tilka alxalaa ala alladi ra'aahu biha wa hiya lahu hadiyatun min arrasuli sallallahu alayhi wa sallam fa in kaana qawiyan amkana lahu labsuha libsuha ala alfawri fi dunya wa illaa fa hiya mudaxaratun inda allahi yalbisuha mata yuqwi isticdaadahu imma fi dunya wa imma fi alaxira fa man xasala lahu tilka alxalaa wa labisaha fi dunya wa fi alaxira takunu hadihi alfutuwa lahu min annabi sallallahu alayhi wa sallam fa kullu man raa dalika alwali aydan fi tajallin min altajalliyaati wa fi tilka alxulca annabawiya fa inna dalika alwali yaxlacuha wa yatasaddaqu biha niyabatan an annabi sallallahu alayhi wa sallam ala dalika alraai althani wa tanazal min almaqaami almuhammadi lilwali xalcatan axar akmalu min min tilka al xalaa iwada ma tasaddaqa bi an annabi wa hakada ila ma la nihayata lah walam tazal hadihi futuwa dabu dabuhu sallallahu alayhi wa sallam wa aadatu li saairi man yaraahu min al awliya abada al abad wa hadihi kayfiyatun min altaalluq suwari wa hiya an tulaaxida annahu sallallahu alayhi wa sallam mil al kawni bala huwa aynu ba tey mu wax ne Mawlana Alxaaji Omar yal na yàlla fayal ñu ko nee na waliyu bu mat gis nga lu mu gën a jaamu yàlla sûrement leer yi day gën a sotteeku ci ruuxam te leer yi lu mu gën a sotteeku ci ruuxam loolu mooy occasionné ci moom muy gën a xam yàlla mooy occasionné ci moom muy gën a bëgg yàlla gën a yegg ci yàlla gën a sax ci yàlla gën a am résistance ci yàlla gën di tudd yàlla ba nga xam ne du ko fàtteeti maanaam début bi day jafe waaye lu mu gën a avancé lumière yooyu ñuy sotti ci ruuxam moo koy gunge ci loolu mais loolu itam action bu ne day am réaction réaction bi mooy comme yàlla itam benn xalifa la am alal itlaq muy yonent bi lu leer yooyu gën a bari ci moom day gën a xam itam yonent bi day gën a sopp yonent bi day dem ba buñ tuddee yonent bi dafay agité ndax lumière bi muy dégg ci turu yonent bi léegi loolu dafay def ay impact ci jëmmam ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa looloo tax kon waliyu selon moom engagement am ci yàlla ak engagement am ci prophète bi ci lay gën di avancer léegi lu mu gën a di avancer ñu gën di ko jox leer leer googu di gën a sotti ci moom mbëggeel yi ma wax ci yàlla ak yonent bi gën leen a xam boobaa nag muy gën di avancer euh, léegi nag avancement yooyu mooy jur ci moom bu ñu tuddee turu yonent bi du mën a ti téye boppam euh, doy na ci rek kii di wax nii Cheikh Al Hadj Omar Fouti mosaan dégg turu yonent bi wala Cheikh na Tiyaani gis nga moom Cheikh Omar doom bu mu am yonent bi la ko tuddee nga gis ne boo de loolu du lu nit di tey euh, da ngay dem ba dangay ngay jeex ci yonent bi ba loo gën a baax gën a bëgg yonent bi lu leer gi gën a bari mu jural la bëgg yonent bi nga dem ba xam ci eh, maanaam attan ci xam yàlla loo xam ne nii jàngoo ko fen nee na nag nit ki bu demee ba àgg foofu ci yonent bi ci jeex ci moom day dem bay gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo xam ci gént la wala jëhra mais yonent bi nag dafay defal gaa yi ay eh, eh, extension spirituelle ak tabaaraka la ay promotion léegi nag yonent bi bu feeñoo nitu yàlla yére boobu mu sol moom yére boobu mu sol nga naan gis naa yonent bi sol na yére bu weex wala sol na yére bu verte dafa kaalawu lii dafa kaalawu lii mel na ni mel na ni image bi nga gisee yonent bi nee na wëliyu bu gisee yonent bi image bi mu ko gisee kado bu ko yonent bi jox la yonent bi boo ko gisee rek yow mi ko gis na mu mel lool yow la ko may mu ngi mel ni tey boo xamoon nit mu am benn basin boo xam ne nii dañ ko daamine defar ko ba mu ba mu cher lool rafet lool mu kase ko nga gis ko akolaat ko nuyu ko ne ka ah, rang naa ci bi mu na la bés ci tey yaaka moom xam nga waa ji li des ci bés bi te nga gëm moo xam di nga gis ne yor na yére bi mais en réalité kan moom yére bi yow mi nga ndax danga nekka ne rang naa mu ne jox naa la ko pare ci bi nitu yàlla bu ko gis rek loolu mu sol yow rang rang gi nga rang moo tax ñu jox la ko kaala geeg yére yeeg dàll yeeg kurus geeg yépp yow lañ ko doon may ci jëmmam nee na gis nga moo tax ngay gis nit jënt gis yonent bi après jaare fa changé te yére yooyu nag yére la mais da ngay changé doon beneen nit gën a baax parce que yonent bi dala doon defal promotion nee na itam waliyu bi yàlla bu ko defee yonent bi boo ko gisaatee beneen gisin mu solaat leneen joxaat la boobu kon ñiy gis yonent bi maintes reprises fois ñoom seen cër nu mu toll hmm? waaw taalibe cheikh yi toog moom nag moom cheikh manaan wës fa moom ñooñu xam nga seen mbir gën na yéeme léegi nag waliyu boobu nga xam ne yonent bi da koo summil ah, ay yéreem moom itam donn gi mu donn yonent bi tax na bépp taalibe bu mu amaat itam te taalibe dëggu ci moom moom it bu géntee gis sëriñ boobu ci melokaan boobu yére yamu sol moom la ko doon offrir comme ni ko yonent bi defalee taalibe boobu gay da ngay gis moom it day amaat beneen dimension day amaat beneen station mu ngi mel taalibe cheikh bi génte gis cheikh na tiyaani gis nga lim koy lim koy sottil de même que taalibe boobu taalibeem moom it bu dëggoo ba donn sëriñ boobu noonu lay melaat maanaam moom it bu ko taalibeem génte gis ko ci melokaan boobu lépp loo xam ne sëriñ ba sol na ko ci xaal ci lumière moom lañ koy yebbil moo tax ndekk gént gis nitu yàlla bénéfice yi ci ne kenn xamul mu toll loolu lan moo leen ko may mooy connectivité bu njëkk ba muy yonent bi moo connecté wu ak yàlla yonent bi connecté wu ak seen tiyaan yi ñuy wàcc di wàcc di wàcc kon ki ne gént naa gis Cheikh Omar mu jox ma kurus bul foog ne génte kese la ay code la euh, gént naa Cheikh mu jox ma yére gént naa Cheikh jox ma yatam bi et cetera wala mu jox ma téere yooyu ay code la yoo xam ne ni moom la leeral fii kon yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Omar radiyallahu anhu ci yi mu leeral nii ndax comme nee na yonent bi léppam leer la effectivement kon loo gis ci moom rek loolu ay promotion la yoo xam ne nii yuñ la may la euh, beneen nag teewlu bi nga xam ne mooy mooy bu mu lay proposé waat Cheikh Omar ba tey mooy nga ne waa may man man mënumaa gis yonent bi parce que lii parce que lii Cheikh Omar nee na kon jarul am na bu gàtt mooy ku ne xam ne ne humanité yëpp wala boog univers yi univers yi ne Cheikh Omar nee na yëpp yëpp lumière yonent bi la dëgg amul benn espace wala benn temps bu dul lumière yonent bi moo ko moo fa nekk waaw léegi yow nee na imaginel nag lumière boobu da ngay boo toogee di lazim da ngay jàpp ne annaka mutaxammisun fi dalika nuur ma taxyiri ayni l basar lal basira mu ne da ngay jàpp ne yow euh, maanaam danga nga nuur ci biir lumière u yonent bi mu mel ni géej géej tabaarakallahu ki ci ki ci dugg di sangu même bu gëmmoon sax est ce que du sentir ne mu ngi ci biir ndox nee na yow itam booy toog di lazim wala ngay wasifa wala ngay xadara da ngay gëmm d'abord Euh, mais nga teewlu ne yaa ngi nekk ci leeru yonent bi di nager ndax espace bi yëpp leeru yonent bi la léegi noonu nga nekkee di nager nee na na nga gëmm waaye sa gëm sa bëtu sa bëtu bopp yi laa wax nga gëmm ko waaye waxuma sa vision mystique ndax sa sa xalaat euh, maanaam sa xol moo war a xalaat ne yonent bi nga nekkal bëtu xol moom ku ko gëmmal moom teewlootoo léegi nag nee loolu boo demee ba nekk ci ba lab ci ci leer googu wa talaashi wal ayniyatu fa tasifu xiina idin ba maqaamil ana bi maqaamil fana fii wa man xasala lahu maqaamul fana fii daaqa mahabbatuhu wa huwa ahadu qismayi taalluqi suwari nee na boo demee nag ba lap ci ndox moomu nga imagine na yaa ngi ci géej gi di lab bés boo labee bañ ne dee na xam nga bu doon ci ndox lu négatif la waaye bu dee ci lumière lu positif la bu boobaa loolu da ngay yëgg ci maqaamu fanaa mooy jeex nga ci yonent bi te loolu moo doon sommet bi nga xam ne moom lañ bëggoon ci yow boo yeggee ci maqaamu fanaa mooy dangay ngay sopp yonent bi jeex ci moom te loolu moo taxoon ñu laan booy werd na nga na nga teewlu lañ bëggoon mooy sopp gooy sopp yonent ba jeex ci yàlla te jaag maanaam ba jeex ci yonent bi te moom waxoon na la ne fële yonent bi dafa jeex ci yàlla fa kaana fa fa danaa fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna moom yonent bi loolay maqaam pour toujours yow itam kon boo bëggee am loolu seeyal rek ci moom comme moom seey na ci yàlla yow boo seeyee ci moom loolu moo doon li nga bëgg euh, loolu mooy benn éventualité bu njëkk bi Ahmad euh, ibnu Abdul Karim waxoon te muy nga teewlu yonent bi ba mel ni yaa ngi koy gis beneen euh, beneen bu ñaareel bi mooy ngay ngay ay jikkoom maanaam ngay julli ci moom ba mu lay jox ay jikkoom nee na loolu itam boo ko bëggee gis mooy talaazumu shawq wal mahabba xata tajida zawqa mahabbatihi fi jamici wujudika qalban wa ruuxan wa jisman wa shaaran wa basharan kama tajuz sarayaan al maa al baarid fi wujudika ida sharibtahu bacda aldamai alshadid hada wa inna xubbahu sallallahu alayhi wa sallam fardun ala kulli ahadin qaala allahu taala annabi awlaa bilmumin min anfusihim wa qaala sallallahu alayhi wa sallam lam lan yumina axadukum xata akuna axaba ilayhi min nafsihi wa maalihi wa waladihi fa in lam tajid fi jamici dalika wujud hadihi almaxaba allati wasaftuha faalam annaka naqsu liman fastaxfir wa tadarrac wa tub min dunubika wa tawaabic wa tawaalic watlub alxuba bidawaami dikri annabi sallallahu alayhi wa sallam wa taaduba macahu walqiyaam bima amara bihi maal ijtimaa ma naha nuhiya laallaka tanaalu dalika fa taxshura fa tuxsharu maahu li annahu alqaa'il sallallahu alayhi wa sallam almaru maa man ahaba wa ida taxaqaqta maqaama alfanaa fiihi sallallahu alayhi wa sallam falyakun fanaauka an alfanaa huwa almaqaamu almahmuud fa inda dalika tulaqi maa yufaadu alayka minha ay min alsuwar allati daharat min annuuri wa kayfiyatu an wa kayfiyatu an tulaaxida wa an tulaaxida inda tawajjuhika ilayhi sallallahu alayhi wa sallam annahu almutawajjihu eh, li nafsihi xata tatalaasha fihi kadalika ida sallayta alayhi laaxidan laaxid annahu sallallahu alayhi wa sallam huwa almusalli la anta li anna jamii al-ashyaa xuliqat min nuurihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi kulli darratin min ad-darraati daqiiqatun minhu sallallahu alayhi wa sallam wa tazharu tilka ad-daqiiqa bi xasabi xaali alladi hiya fiihi wa anta min jumlati al-ashyaa wa fiika sirrun minhu sallallahu alayhi wa sallam fal mutawajjihu fal mutawajjihu minka lahu dalika sirrul kaamin fiika walam tazal kadalika min maqaamin ila maqaamin xata yanquluka allahu ila maqaami albaqaa bihi sallallahu alayhi wa sallam fa inda dalika takunu insaanan kaamilan waarisan alxaqiqata jaamian alkamalaati almustafawiyyati fa ahmadillaha taala ala ala ma awlaaka wa ataaka wa kun taaliban maqaama alcubudiyati gaariqan fi bixaari altawxidi aarifan bitasarrufaati alwaxdaaniyati الثالث والعشرون استحضار معاني ألفاظ الذكر إن كان لك قدرة على فهمها قال في الجواهر المعاني واستحضر مع ذلك معاني ألفاظ الذكر إن كانت له قدرة على فهمها وإلا فليستمع بذكره بلسانه ليشغل فكره عن الجولان عن غيره مما هو بصددي وبعيني على الحضور وقال في الخلاصة المرضية الحادي عشر في يعني من الآداب الذكر إحضار معنى الذكر بقلبه مع كل مرة والله الموفق بمنه للصواب وإليه المرجع والمآب Mawlana El Hadj Omar nee na kon yow mi zikr teewlu yonent bi mënta ñàkk ci yow bu njëkk bii nga xam ne moom laa waxoon te mooy nga jàpp ne da nga gëmm waaye da ngay dugg ci géeju leeru yonent bi ba xaw a lab ci biir loolu mooy bu njëkkee bu ñaareel bi mooy nga topp ko xam naa di nga de man manuma dimension boobu ndax dafa kawe mu ne kon na ko jéem a topp waral sa bopp sopp ko lool ndax nee na gis nga sopp gi nga naan dama bëgg yonent bi bul ko xeeb de loolu lu foor la pour defar sa ruux ndax yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko soppee day dem ba lumière boobu day dugg ci sa xol ak sa ruux ak ci sa yaram ak say karaw ak sa der ba nga xam ne dangay ngay mujje cofeel googu danga koy naan comme ndox ni nga xamee ne waa ji nga xam ne dafa mar bay bëgg a dee tabaarakallaahu ñu indil ko ndox mu sedd guy doo sentir ne bu naanee ba àggal ndox moomu fan la dul nekk ci yaramam fépp lay dugg ci yaramam nga gis ko mu commencé ñaq yaramam commencé sedd nee na itam boo boo sopp-soppaloo bi di ci sonn di julli ci moom dangay ngay ñu ko jox la kaasu lumière boo xam ne dafay dugg ci sa ruux dem ci sa parti yëpp raxas ko ba mu set wicc ba daanaka sa yaram yëpp ñu vider ko lépp lu ci baaxul woon jël cofeelu yonent bi sol ko ci ba mu fees del noonu nga xam ne kële mar noonu lay mandee yow itam noonu ngay mujj mel te ku ne xam na ne sopp yonent bi dafa war ci ku ne kon condition yi la koy may yow war nga ci sonn ndax yàlla moo wax ci suuratul ahzab ne annabi awla bil muminin min anfusihim yonent bi moo gën a yey ci jullit yépp ci seen bopp kon sopp yonent bi dafa waroon ci yow moom yonent bi moo waxal boppam ne kenn du gëm ci yéen jullit yi ngëm gu wér lu dul man yonent bi maa koy bëggal maa koy gënal boppam gënal ko alalam gënal ko ay wëyjuram ak ay doomam nee kon boo yëgee sa existence cofeel googu matagu ci jàppal ne war góor góorlu pour matal ko léegi nag boo xoolee ne yow yonent bi moo la yow sa bopp moo la gënal yonent bi mooy li olof di wax sama boppaama la gënal du bañ naa la loolu yonent bi exception la ci war a nekk léegi nag nga yëg ne yow yonent bi ba bii may wax ak yow pareegoo pour sacrifier sa bopp pour moom nee na na nga xam ne kon feebar nga nee na na nga xam ne sa sa sa ngëm matagul bu boobaa lenn lañ lay digal mooy nga jéggalu yàlla te toroxlu ci moom tuub ci say bàkkaar xëy na bàkkaar yu bari moo tax mën a goo loolu bari na koo xam ne gis na kuy gàmm mu mer ci te dara juru ko lu yonent bi ko gën lagul boppam rek waaye moom anniversaire am bu jotee mu mu mu màggal ko mais bu gàmm jotee mu jël ñaar jox la ne maa loolu mooy yonent bi gën a sa bopp bu ko defee nga raxas sa bopp ci yooyu nga sàkku nag di ko jéem nooy bëggee yonent bi petit à petit ànd ak moom nag ci teggin di matale ay ndigalam di bàyyi ay teram loo ci man ngir bokk mine de rien yàlla boole la ci mbooloom ëllëg ndax yonent bi moone ne almaru maa man ba nit ku ne ka nga bëgg rek moom lañ lay booleel dafa bëgg a wax ne boo amul dimension euh, suprême bële te mooy dem bay dundandoog yonent bi ci biir lumière am ci fanaa u nee na à bëgg ko bokk ndax bëggeel gi moom ku ne xamee ne jullit bu ne jaadu na ci moom à la nga xam ne ëllëg boog dinañ la boole ci xadis bi ne nit ku nekk nga bëgg rek moom ngay àndal yowmal qiyaamati te bés boo bëggee yonente bi lumière bi di yokku di yokku dana dem ba yóbbu la sax ci fanaaw nga dem ba jeex ci yonent bi nga xam ne bu jàmm toogee doonatul moom mais léegi yonent bi ci boppam moo dugg ci biiram solu ba fees del nee na foofu nag boo fa àggee rek yaa ngi ci maqaamul mahmud ndax bés bu jot yàlla dina sotti ci sa ruux ay xeetu lumière yoo xam ne ak xeetu proximité ci yonent bi ak yegg ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla di nga yëg da ngay dem ba sentir ne yaa ngi julli ci yonent bi ci salaatul fatih mais du yow yaay julli mais yonent bi ci boppam mooy julli ci boppam ndax moom moo installé wu ci yow moo fees ci yow moo jiix ci yow bu ko defee loolu moom la moom mooy sommet bi nga xam ne moom lañ soxla ci yow boo demee ba toog di julli da ngay jàpp ne yonent bee julli ci moom ndax lumière am moo dugg ci sa biir mooy julliwaat ci boppam ndax li nga war a gëm mooy kawnu bi yëpp ay leeru yonent bi lañ ay feeñu waayam lañ li ci rëy ak li ci ndaw yëpp loolu yëpp leeru yonent bi lañ bu boobaa boo demee ba xam loolu dund ko dangay dem ba yàlla di la ko wan petit à petit ba nga gis secret boobu nga xam ne mu ngi nëbbu ci yow euh, di gën di avancer di gën di étinceler loo gën a zikr gën a euh, gën a baax loo gën a baax leeru yonent bi gën a ñëw ci yow ba yàlla jëlee la ci nii nii na ngay dundee di gën a jege yonent bi di gën a baax di gën a jege yonent bi ba keroog bala fi yàlla jëlee ñu ne diw faatu na ah diw faatu na nag boo rejoindre yonent bi ci ngay xam nag njariñal proximité ak yonent bi ban njariñ la am bu boobaa day fekk nga bokk ci ñi donn yonent bi à cent pour cent gis nga lii Cheikh Omar di wax ndekete moom lay wan ne la yow lazim bii ngay def du benn routine rek booy def wasifa bii ngay def du benn routine rek bi oto autoroute la boo xam ne dafa am fu la jëme fan la la jëme garage ba mooy fii waaye nga dem ba yonent bi ci boppam yaay sey ci moom ba moom mooy exister waaye doo fi nekk naan man maay diw man maay diw mais da ngay dem ba sey ci yonent bi ni mu seeyee ci boroomam subhanahu wa taala kon ndekete lazim bi ñu lay teewloo teewluloo yonent bi ak wasifa bi some bi lii rek la bu ko defee boobu nag boo ko xësee am ba fekk ci yonent bi ci ngay bég lool ci li yàlla may kon na nga góorgóorlu amee maqaam boobu bu ko defee nga nekk ci maqaamul ubudiya nekk ci baxaarul bixaarul ahadiya nga xam ne ay géeju leeru jimmi yàlla rek la ndax yonent bi biiram intimité leeru yàlla rek la moo fa ne bu defee nga xam kan mooy yàlla ak doxalinam lii daal mooy charte vingt trois bi kawe na nag léegi nag pour tëj chapitre bi mu ne vingt troisième charte bi moo di yow nga teewlu baatu zikir yi maanaam yow mii zikir da nga war a teewlu baatu zikir yi boo jàngee fatiha nga gis ne fatiha moo gën ci saari alquran yi loolu da nga koy teewlu ñoom boo xamul sax li muy firi boo ne astaghfirullah nga teewlu ne maa ngi jéggalu yàlla lay firi Ah, yëg nga yeneen yoo def yoo xam ne bu tey doon eh, bu démb doon tey doo ko def yooyu nga teewluwaale ko salaatul fatiha gis nga lim niveau bi mu lay yóbbu mooy charte bi nga teewlu yonent bi pour mën a am proximité laa ilaha illallah yàlla moo wax ne faalam annahu laa ilaha illallah kenn nekk fi ku dul yàlla wala eh, buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul yàlla yooyu bul koy tari rek di dem naan laa ilaha illallah laa mel ni looy tari déedéet du looy tari rek looy teewluwaale la mais loolu itam Cheikh Omar li tax boolew ko ci vingt et un charte yële mooy ñëpp dégguñu arab ñëpp dégguñu arab waaye doonatul excuse parce que même boo déggul arab dégg nga beneen langue boo xam ne nii firi na loolu wala faf sax léegi firi nañ kaa firee firi ba ku jàngul sax xam nga ne laa ilaha illallah nangam lay firi astaghfirullah nangam lay firi euh, kon lii mooy vingt trois d'une manière générale yi Cheikh Omar bëggoon a jàngale mu tëje ko nag xulaasatul mardiya moom nee na bokk na ci chartu tegginu euh, maanaam zikr nga teew lu yow sensu li ngay zikr ku ne xam na ne tabaarakallahu benn baat boo koy wax ci ci làngu jàmbur ti xamoo li muy wax mën nga koy utiliser fekk na sax kàddu lor la tey ku jëgoon jëloon kàddu goo xam ne gu ñàkk teggin la euh, salopaar ci français nga wax ko benn waaye rek mu jël téye baat bi fu ne mu jëme ko fa xam nga bés bu ko waxee baayam wala kilifaam xam nga dinañ laaj kii xanaa xamul li muy wax nu muy firi looloo tax ñu bëgg booy jaamu yàlla à la la ngay jaamoo yàlla na xam li mu lu muy firi même sa sëriñ sax bu la woowee na la turu yàlla sàngam def def ko nekk sëriñ bi waroon nga ma dimbali xamal ma sëriñ tur bi lan lay firi yaa latif bu ñu nee dee ko def nekk sëñ tur yi lan lay firi ndax itam dina la dimbali nga teewlu d'abord ne yàlla yaa ngi tudd yàlla waaye di nga teewlu itam li li nga xam ne moom la tur bi di di firi ndax yaa latif ak yaa bokkul hmm? foo waree nag zikar yaa latif ñu ne weer dafa yaa jabaaru kooku kooku loo fa gis rek yaa ko teg sa bopp hmm. kon xulaasatul mardiya nee na fow nga teewlu sensu zikri yi Cheikh Omar nag ne wallahu almuwafiqu lissawaab wa ilayhi almarjiu wal ma yal na yàlla fayal ñu ko ñu fi naa vingt trois chartes yi euh, xëy na yow taalibe bi dégg nga ko xëy na sax meloo népp waaye fexeel ba lu ji mat rectifier ci sa boppa nga sonn ci bala ngaa wuy ji sa borom euh, loo xam ne mel nga ko itam encouragel sa bopp ci gën koo sawar te itam képp koo xam ne muy taalibe cheikh nga gis ci moom benn ci yii mu di ko woyofal rawatina ñaar yi Cheikh Omar gën a yaatal te muy wóolu pexum yàlla ba ne lu ma neex lay def tijaan laa ak beneen bi mooy di doyadal magi tariqa bi ak muqaddam yeeg mbokki taalibe yi ñaar yooyu sori na ci lool nga xam ne yitteel na ko te la mu doon sori ba tey ñu ngi koy dund nga xoolaat sa bopp vérifier sa xol vérifier sa xalaat nga gis loo ci gis mataloo ko bu dee ak dénkaane la nga jëm ci sonn bu dee luñ tere la nga dafa parce que kenn ku nekk sax tiijaan lañ lay laaj ëllëg tiijaan collectif amul tiijaan individuel la am